au nom du mouvement citoyen Vision Guédiawaye que je représente ici. Dans le mouvement, je suis le point focal euh, de Vision au niveau de la commune de Nyarim Limamoulay. Nous sommes une organisation citoyenne en hein, cherchant à développer des dynamiques communautaires hein, pour que le devoir de participation qui comme à, à chaque citoyen soit effectif dans la mise en œuvre des politiques locales au niveau de chacune de nos, de nos, de nos communes. Alors, euh, le, le, le, la rencontre là est extrêmement euh, euh, importante. elle vient à son art. Il y a effectivement la question fondamentale du changement climatique. Au niveau communal, ce n'est pas encore abordé, mais c'est un problème qui est réel. Surtout pour des communes comme Pékin et Guédiouaï, où hein, il y a deux menaces, où il y a deux contextes qui sont extrêmement défavorables. C'est le problème déjà de euh, l'érosion côtière, mais aussi c'est le problème d'une urbanisation extrêmement déséquilibrée. Voilà deux lits qui font que les, les, conséquences d'un réchauffement climatique pourraient avoir un impact extrêmement négatif et rendre vain, si on ne fait pas attention à beaucoup d'efforts qui ont été faits. Et on ne peut pas parler de développement durable si on ne s'inscrit pas d'ores et déjà dans une, euh, euh, euh, dans une dynamique de protection de l'environnement, dans une dynamique de préservation des équilibres naturels. Et malheureusement, beaucoup de nos activités se traduisent par un régime massif de gaz à effet de serre qui dérègle la composition chimique de l'atmosphère et qui, par conséquent, entraîne une augmentation moyenne des températures. Les conséquences seront dramatiques si nous ne prenons pas les mesures nécessaires dans le sens de réduire ces régimes massifs de gaz à effet de serre liés surtout à l'utilisation des combustibles fossiles. Donc ce Absolument, absolument. Et moi, j'ai aimé aussi euh, euh, cette approche transversale qui fait que c'est un projet intercommunal euh, parce que justement, c'est un problème hein, qui va qui, a cette transversalité qui concerne pratiquement tous les pays. Vous pouvez ne pas faire, mais les autres vont faire et les conséquences vont vous envahir aussi. Quoi. tudd dama ñëw ci jataay bi ci turu vision Guédiawaye bu mu Mamadou Dieng jiite sunu coordonnateur boobu nag yàgg na liggéey ci agenda 21 local fii ci Guédiawaye euh, dafa am empêchement moo tax euh, mu wax ma teewal ko fii ci jataay bi ñuy rafetlu projet bi ñëw na ci waxtu bi mu waree ñëw ndaxte li ko yëkkati dafay lu am solo ndax kenn mënul wax développement te xalaatoo environnement or boo xoolee suñu environnement mi ngi yàqu-yàqu bu xaw a jéggi dayoo yàqu bu doy waar te yàqu-yàqu boobu mi ngi euh, wékku si pollution bi nga xam ni dafa am ay euh, gaz yu ñuy wax gaz à effet de serre gaz yooyu day absorber chaleur ñëpp xam na ni bu nawetee day tànk parce que dafa am benn gaz bu ñuy wax vapeur de bu gaz à effet de serre mais gaz à effet de serre dañ koy ñaan ndax après dana seddal waaye dafa am gaz à effet de serre bu grave oxyde de carbone gaz carbonique gaz boobu réchauffement bi nga ne conséquences grave ndax dañoo nekk si taatu benn conséquence niveau géej bi Déjà, il déjà a une érosion côtière extrêmement grave mais bu niveau géej bi il y a de kaw ah am de quoi yu euh, de fa am bi le euh, euh, réchauffement climatique mën na perturbations ci climat y grave par exemple si de rek Abidjan na fa taw grave bu y or ñun suñu dëkkuwaay yi dafa déséquilibré du urbanisation bu baax amul réseau d'assainissement yu doy euh, ba nga xam ni parfois on est très menacé moo tax jataay bi am na trop solo jataay bi nag bu leen kenn nax projet bu mënti am tant que amul responsabilité citoyenne collective engagement communautaire ñu créer ay dynamique communautaire mën porter ay développement du dem fenn buñ ko gisee comme projet bien, nga xam ne rek euh, euh, dafa war am ñu war ñu ñëpp la war ñu ñëpp changement dafa interpeller changement comportement ndax boo xoolee activité yu bëri ñu koy def day yokk gaz à effet de serre te nit ñi Sénégal malheureusement loolu mooy suñu problème suñu problème moom mooy euh, lu askan bi moom en général duñ ko toppatoo ku ne da ngay te loolu mooy li war mënuñu développer te lépp lu ñu bokk muy koñ bi muy mbedd bi muy dëkk bi muy koñ bi suñ ko développé wul mais duñ développé wu ñaata la ñu mobiliser si ay milliards si biir kër gi bari ji dina am kër yoo dem la fa nekk si ay millions mobiliser comme meuble comme lii lan bari di dina am te si kër googu nit ñi am nañu fa nekk liggéeyuñu